Sénégal bokk na tey Afrique boo xam ne am ñu si dokkeel waa ndaxte ambassadeur France taux d'électrification bi yegg na foo xam ne ndaxte 2012 1646 villages moo électrifié ñu yegg si 2018 ñu am 5000 et quelque yorewuma chiffre en tête mais autour 2022 presque ñu yokkat lu ëpp li nga xam ne moom la ñuy def 2018 ba 2022 li tax nag différence boobu projet yi ba koy togg ah ba nga xam ne togg nañu ba pare ak électrification bi loolu mooy indi que entre 2018 ak 2022 taux bi gën a gaaw. fu mu nekk nii président li mu bëgg mooy di d'ici deux mille vingt cinq dëkk bi yëpp Sénégal yëpp foo dem nga fekk fa courant muy courant boo xam ne dañ ko toggee si naaj muy courant boo xam ne dañ ko toggee ak ndox muy courant bi nga xam ne itam dañ ko toggee ak gaz ou pétrole tey nag gis nañu coppite yam si jaww bi tax na ba ñu gisee suñu gaz ñu ne dañuy def tout. pour wàññi li nga xam ne mooy njëgu courant bi parce que courant cher na fi dañ koy nangu wante nag am na yeneen dëkk yoo xam ne fa la gën a chéré mais au niveau international courant bu ñu toggee gaz euh, euh, euh, pétrole mooy gën a cher courant bu ñu toggee gaz moo taxoon ñu doon tàll suñu loxo ñi nga xam ne ñoo ñu faral di gunge. ndax dañu ne jaww bi soppeeku na soppeeku boo xam ne saxaar yi nga xam ne moom la industrie yi di sànni si jaww bi moo andi jaww bi gën a jaxasoo ñu ne leen waaw d'accord nañ waaye yéen ba ngeen di koy utiliser di ko jëfandikoo di yàq jaww bi ñun amuñu defuñu si dara léegi dañu buggoon ngeen bàyyi ñu ñu jël suñu gaas togg def suñu ay industrie pour xale yi am liggéey ndax suñu defulee su industrie yooyu ah sunu xale yi liggéey énergie renouvelable mooy bi nga xam ne si naaj bi lay jógee mbaar si ngelaw bi mbaar si ndox mi baax na lool wante amagul ba léegi ay industrie yoo xam ne à 100 pour cent loolu lay doxee donc ñu ne leen transition énergétique bi ngeen bëgg mënul gaawee noonu da ngeen ñuy may ay diir ñu tamit ñu jëfandikoo sunu gaz yegg si électrification industrialisation wàññi courant bi papel nag bu boobaa ñu wax affaire transition énergétique bañu ñu nak xeex bi nga xam mom lañu la xeex pour jaw bi ah yalla wañ li nga xam moy mooy tolof tolof yi si nekk mais tamit sunu ndaw yi sunu industrie dañu soxla mu jëm kanam donc data center bi daf ñuy permettre données yooyu yëpp ñu centraliser ko rëy na rëyaay boo xam ne salle bi rëyul mais suñu jëlee li ñu naan capacité bi di fi nekk si capacité Senelec rek soxlawu ko donc moo tax ñu leen di tàllal loxo su fekkente ne mën nañu may yeneen service état bi ñëw installé wu fii notamment l'ADIE te bu maa ngi waxtaan ak sama ministre sama xarit euh, Diatara pour ñu xool naka la ñu war a mën a lënkaloo ba jumtukaay bi nga xam ne moo fi nekk nekkal fi Sénégal ñu seet nag naka lañ si mën a indi ak ñoom.